العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون نصلي ونسلم على رسولنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي نجلن دي نيو ci kàddu googu di kàddu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bu nu jiitalee sant sunu borom subhanahu wa taala ñaarelee ko julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam na li ñuy njëkk a bàyyiloo xel suñ bopp rek mooy waxtu wi ñu jagleel thème bi 30 minutes la bëriwul te thème bi yor ay aspect yu yaatoo yaatoo yaatu muy transformation yi am ci société bi ak njabootu tey loru gum ci loru ban modèle la Sénégal soxla pour génn ci jafe-jafe yooyu nga xam ne tey kër goo dem ñaari fekk fa incha allah taala dafa nekk benn njàngat boo xam ne am na relation ak société waaye am na relation ak li nga xam ne mooy base société di pas-pasam di culture am am it relation ak li nga xam ne mooy yëngu-yënguy société di civilisation bi ak mbooleem mutation yi nga xam ne day am ci biir société yooyu moo tax mu nekk société bu yaatu maanaam moo tax mu nekk thème bu yaatu nin ko fas yéene jàngatee ci njëlbeen daañu jàngat lan mooy al usra muy famille ak lan mooy société ak lan mooy at taxawulaat xeeti taxawulaat yi nga xam ne am na ci biir société bi incha allah sunu paree door a joxe modèle bi nga xam ne jàpp nañ ne mooy bi Sénégal soxla pour am société bu mucc ayib am itam famille bu mucc ayib suñ waxee société bu mucc ayib rek am nañ famille bu mucc ayib ndax famille ci niñ koy xamle mooy base société ñu commencé ci fi ñu commencé thème bi muy société une société en mutation maanaam société bu nekk ci ak wëlbatiku lan mooy société dañuy wax ne al mujtama huwa majmuul usar wal afraad المكونة لحياة هذه المجموعة على صعيد محدد ومعين bu ñu waxee société mooy mboolo mbooloom ay njaboot yu dajaloo ci benn barab benn surface bu ñu déterminer am yéenay dund fa ci anam goo xam ne gu nosewu la loolu mooy société ci gàttal kon faw mbooloom ay famille lay doon famille yooyu ay individu composé ko ñu amit yéene dund ensemble dund ba ay règle di ko atte bi maanaa di ko nose société boobu nag tey moo nekk ci ak wëlbatiku du société sénégalaise bi rek waaye société yi ci àdduna bi yëpp dañu nekk ci mutation boobu famille nag buñ ko waxee moom dafay nekk majmua min al afraad al mutakawina min abin wa ummin wa abnain wa banaat wa ixwatin wa axawaat ci ñenn ci ñi am pas-pasu diina noonu la ñuy définir société muy way jur wu góor ak wu jigéen ak la leen suñ borom subhanahu wa taala wërsëgal comme njaboot ñoom it ñu fas yéene dund dundin woo xam ne ay règle moo koy nose loolu mooy définition bi ko lislaam jox ak ñi nga xam ne yépp dañoo gëm diina mu wuute nag ak ñi gëmut diina ñoom mën na nekk daje boo xam ne dafay tegee rek ci bànneexu bakkan saa ñuy tënku ci ay règle yi askane borom bi tabaraka wa taala waaye mën naa am ay règle la yoo xam ne ñoom ñoo koy tëralal seen bopp mu sore yoo lool ak règle ak norme yi nga xam ne moom la lislaam di tërale société ñu ñëw nag ci société bi nekk ci ak jàllar bi ko kanaa loolu mooy une société en mutation société sénégalaise bii ñuy dund jaar na ci ay étapes yu bëri étape boo ci xool jàngat ko comparé ko ak moromam da nga gis ak wuute bu nu xoolee depuis 1048 société sénégalaise bi mu ngi gënoon a basé wu ci diina amoon it sens sensu am ay règle yoo xam ne dafay soqeekoo ci diina règle yooyu nekk ci loxoy ay kilifa yu gëm diina di wammat société ba ci yoonu diina loolu jaar na jaar nañ ci fii ci Sénégal muy benn étape muy état bu ñoom Cheikh Abdoul Qadir Kane ak ñi ko jiitu woon ñoom Thierno Souleymane Baal ak ñi nga xam ne ñoo ñëw gannaawam ñoom Cheikh Oumarul Fouti ñoom ñëpp nekkoon ay njiit yoo xam ne société yi ñu doon dund fii ay société yu ñu tabaxoon la ci diina ñu dem ab dur beneen société juddu maanaam société boobu wëlbatiku nekkaat société bu yeneeni kilifa jiite yu bokkut ak ñii ñu fi tuddoon kilifa yooyu mën nga cay joxe ku mel ni ki ñoom fedar ba ñi nga xam ne ñoom lañ àndaloon doon tabax benn société bu bees ci culture bu bees ci civilisation bu bees commencé woon ko ca ndar ñooñu it seen civilisation ba ñu indee culture ba nga xam ne ca lañ tabax seen société soqee ko ay gis-gisi doomu aadama ay règle ay principe yoo xam ne nit a koy tëralal boppam buñ nee nag nit a koy tëralal boppam mooy nit koo xam ne gëmut ne yàllaa ko war a tëralal na muy dundee ci société loolu nekk na fi benn forme boo xam ne bi mu ñëwee indi na ay transformation maanaam ay wëlbatiku yu yaatoo yaatoo yaatoo yaatu ci sunu société sénégalaise bi li ko may nag mu yaatal lool gisinam aadaam caadaam civilisation mooy da ko tabax ci ay jàngu jàngu yoo xam ne fexe na ba doomi xeet wi maanaam askanu Sénégal Sénégal seenu seeni njaboot di jaar ci jàngu yooyu mu am possibilité mën a yaatal lool tabaxiinam ci société ak famille non seulement am na ay jàngu waaye dafa amaat beneen saasu am état boo xam ne mooy saytu jàngu yooyu école yooyu bu ñu waxee nag ne am na jàngu am na état faw dañ ciy déggee ne kon am na benn juridiction boo xam ne dañ koy dénk ay législateur yuy xelaat culture occidentale boobu ak civilisation occidentale boobu naka la gisee njaboot ak société ñu tëral ay loi yoo xam ne ñooy sàmm gisin woowu ak doxalin woowu laata ñu ko fii tabax nag fekkoon na fi ay mag ñoo xam ne ñu amoon gis-gis lañ yor pas-pas yittewoo woon yar njaboot gi ñoom it ci seen pas-pas waaye amuñ woon doole juñ mën a dékkoo wëlbatiku gu bees googu yaakaar naa côté historique bi taxut ñoo jóg tey waaye rek ñu xam ne mag ñooña defoon nañ seen kem kàttan pour société bi bañ a soppiku ci culture am ci civilisation am jëm ci geneen anam bañ dañ doon bañ ñu bari ci ñoom daj nañ ci ay coono yu métti jamono booba mën nañ ko xaaj ñaari jamono jamono boo xam ne ay nit a jógee ca biti ñëw ak doole not askan wi imposé société bu bees culture bu bees civilisation bu bees ñu dem ab dur période boobu jeex kon mu mel ni beneen transformation moo ñëwaat beneen mutation sociale commencé ci l'indépendance fekkaatoon fi yeneeni mag yoo xam ne mag ñële ñoo leen meññoon ñoom it ñu amoon pas-pas am détermination pour lan li fi seeni maam tabaxoon seen baay tabax ko fi mu wéy lii fi tubaab bi tabaxoon comme l'indépendance am na loola daf fi war a jóg loolu itam benn période la bu gàtt mooy fi ñuy préparer pour tabax Sénégal gu tegee ci indépendance amoon na fa ay ñoddoo mën nañ ci tudd ci ñi nga xam ne ñoo gënoon a fis ci kilifa diine yi doon ñoddoo pour culture islamique société musulmane tabax ko ci ñu tabax ko ci kaw culture boobu am mën nga cee tudd ñu mel ni ki ñoom Serigne Abdoul Aziz Sy mën nga cee tudd lu mel ni ki ñoom Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma mën nga cee tudd lu mel ni ki Alaaji Ibrahima Niass bi Kaolack ay génération bu yaatu la ba ci Serigne Cheikh Tidiane Sy bu Tiwaawoon ñoom ñëpp yàlla def na ñu génn àdduna ak yeneeni kilifa yoo xam ne ci wàllu mouvement islamique ci lañ doon yëngatu mën nga cee tudd lu mel ni que ñoom Mahmoud Ba ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne milité woon nañ pour que société musulmane bi des fi culture am des fi civilisation des fi waaye dafa mel ni dañ leen a notaat encore te ña leen not goog yoon nag malheur bi mooy seen njabooti bopp la kon beneen transformation am na bu bees ñu imposé waat ko société sénégalaise imposé ko kilifa yi fi nekkoon muy kilifa diine yi te ña leen ko imposé di seen i njabooti bopp njaboot yu bees yooyu mooy ñoom Senghor ak ñi nga xam ne ñoom lañ jamonante loon imposition boobu nag mooy wéy ba bis bis bis bi ñu toog nii tey di waxtaan mu nekk benn culture benn société bu bees boo xam ne ci lañ tabax suñu réew tabax ci suñuy institution malheureusement mën nañ wax ne kon ci lañ tabax suñuy famille te départu gisin woowu muy culture boobu ak civilisation boobu départam ak départu diina mu ngi mel ni penku ak xarf ndax pas-pasub diina la mu gëm di ko gëmloog njabootam mooy suuf si suufus borom bi la tabaraka wa taala ñi fiy dund ay jaamam lañu ay mbindeefam lañu borom boobu it dañu gëm ne dafa am xam-xam bu yaatu qad ahaata bi kulli shay'in ilman xam-xamam dafa làmbe lépp loolu la ñu gëm ñu gëm ne itam borom la boo xam ne dafa fees dell ak yërmande non seulement am na xam-xam bu làmbe lépp xam démb tey ak ëllëg lay ñëw te ñun suñu xam-xam dafa tuuti suñ tey tuuti lañ ci xam suñ démb réeree nañ ci lu bari suñ ëllëg xamaguñ ci dara société boobu loolu lañ gëm kon dañu gëm ne suuf si am na borom jaam ñi am nañ ku leen bind kookee leen bind loo xool ci lim bind rek loo cay gis ak mat doo ci gis dara luy tekki wàññeeku kon loola mooy tekki ak matam moom suñ borom subhanahu wa taala beneen société bu bees bii na nga xam ne moom la colon yi indi imposé ko société bi seen gannaaw néocolonialisme néocolonialisme bi dellu ko wéyalaat sampaat ko fi ñoom dañu gëm ne suuf si dafa ñëw par hasard jaam ñi ñiy tuddee ay doom aadama tey dañu ñëw par l'évolutionnisme mën naa am sax seen démb golo la woon kon xam nga ne kooku doomu aadama amul valeur ci moom mu ngi mel ni aw xobu garab rek woo xam ne mu ngi ci garab gi saa yu daggee root benn jur ga fekk ko fa lekk ko way laa mu nekk fa ba wow ñu dëgg ko mu soppeekuwaat suuf saye jeex na société bu bees bii loolu la gëm ci lay yar ak njabootam moo tax école yi mu tabax yaakaar naa li may bëgg a wax yéen ñi ma jàkkaarloon ngeen nekk ci l'école tubaab bi yéen a ma ko gën a xam nangu woon na ci njëlbeen ñu jàngale fi lépp ba ci l'évolutionnisme boobu nga xam ne moom la Charles Darwin gëm ak ak njabootam ci ne lépp lu yàlla waxoon ak yonent yi du dëgg loolu lay tekki lépp lu yonent yi doon wax naan aadama dañ koo bind ci suuf ak ruux dara amu ca ñu di ko jàngale fii ci suñuy jàngu ci waxtu woo xam ne tere nañ ci jamono boobu ñu jàngale bismillahi rahmaani rahim ci ab tableau sunu mbokk yu bari tey ci ñi jaar ci l'école tubaab jaar nañu ci situation bu difficile boobu am ca ñoo xam ne takk nañ ci rip ba soppeekoo ca seeni pas-pas soppeekoo ca am ca ñoo xam ne suñu borom dabaatal na leen baaxee leen bi ñu xoolee asamaan xool suuf xool doomu aadama yeeg li fi ne li fi ne xam nañ ne lii hasard mënu ko fi indi ñooñu suñu borom baaxee leen ñu weddi culture boobu weddi civilisation boobu yaakaar naa ndaw ñi ñu jàkkaar lool firnde la seede la ci loolu ñuy wax ndax néewoon na ci jamono yooya nga daan dugg ci lekkolub tubaab fekk fa xale bu jigéen buy muur boppam waxuma laaj nag yoo ñu ne far ma ngay jàng alquran ba mën koo jàng njàngin mu set mu rafet néewoon na sax góor ga fa daan gis moon loolu waxuma laa xale jigéen yi kon lii mandargaam ak wér la goo xam ne mu mel na ni feebar ba woon mu ngi commencé di wér yàlla suñ borom subhanahu wa taala saafara feebar boobu ba mu jeex tàkk ba génération yi ñu gis ëllëg la seen maam ya ak seen baay ya tële woon yéen ngeen mënal ko seen société te mooy delloo si waat la culture islamique delloo si waat la civilisation islamique delloo si waat suñu juridiction musulmane islamique ba mën a delloo si waat sax suñu état islamique bi nga xam ne moom la fi suñu maam mataat ya tabaxoon ma tudd ci ñenn léegi mooy ñoom Thierno Souleymane Baal yaakaar nañ ne incha allah loolu lu war a jëmm la ci seeni xel ak seeni xol war a mooñoo ak seeni doxalin ak seeni ambition maanaam seeni yi ngeen di yóotu ci seen société loolu dafa war a mooñoo ak moom ba ëllëg incha allah société bi nga xam ne moom la suñ borom gërëm famille bi nga xam ne moom la suñ borom gërëm mën a dellu si waat ànd ak juridiction boo xam ne day soqeekoo ci biir culture boobu pas-pas boobu waaye itam ànd ak état boo xam ne day basé wu ci kaw culture boobu ak civilisation boobu kon wax nañu su ngeen xoolee ci biir mutation sociale depuis masse bu njëkk ba ñaareel bi ñëwu colonialiste yi ñetteel ba état bu l'indépendance ak ñoddoo bi fi amoon ak ñii ñu leen tuddal ñuy ay kilifay diina militantisme bu ñu defoon waaye dafa mel ni amul aboutissement léegi nag ñu ñëw romb nañu état bu tëral ay institution ak constitution passé nañ ko ba tey jii rek culture occidentale moo fi nekk di wommat société bi et ca nam gëmee wommat gii nag tey muy wommat société bi bokki jullit ñi yaakaar naa bu nuy waxtaan tey dimension yi nga xam ne moom la mutation sociale bi am ci sunu jamono bi ñun moo ñu moo ñu yitteel ak nu nuy def ba génn ci li ñuy njëkk a bàyyiloo xel suñ bopp mooy société bi nii muy doxee ab wuy ji gum wuy ji la woote ña gëmoon ne nii la war a doxee waaw ak wuy ji la boo xam ne société bi da koo wuy ji wooteeb ña gëmoon ne société nii la war a tëddee nii la war a tëddee ci nit ak nit en tant que boppam nii la war a tëddee ci famille en tant que nu ko neex mu mu bindoo mën nañ koo tabaxee ca jàkka ja mën nañ koo tabaxee ci dox daje mën nañ koo tabaxee ci nu ne ñaawteef kon amatul ci société boobu actuellement ci société bu mel noonu la ñuy dund moo tax bi ñuy définir famille ñu ne baay la ak yaay ju daje ci yoon ay waajur maye leen ñu fas yéene dund ci ay normes ak i règles yu dëppoog yenu gëm te loolee mooy lislaam yooyu nag yaakaar naa ñun ñëpp xam nañ ne dajjiku na société bi tey boo xasee am fukki at ak juróom-ñett te ragal naa dootu yàgg dara sax ñu wàccee ko ba ci fukki at ak juróom yàggatul ngay góor ngay jigéen koo taseel mu bëgg la nga bëgg ko loolu mën na nekk seen commencement wu seen dund famille saa kii di maye mbaa kee di maye mairie bu ngeen njëkk a dugg ñu defal leen mariage civil kan nag luwaay yi nu gëm di ko dund nangu na loolu loolu sax mooy ña bëgg dund famille waaye ña bëgg dund leneen lu dul famille ñoom mën nañ sax ñàkk a demante ci mairie mën nañ dund rek e ca nañ ko bëggee mu ngoog ca nañ ko bëggee saa ñuy takkante ci fenn société bu mel noonu ci la ñuy dund kon mutation bi ñu doon wax ne am na ci société bi yaakaar naa nekkut lu ñuy laajte yii nag ay loi yu toftaloo depuis 1960 ba fii nu toog moo ko moo ko daganal maye ko loi yooyu xam naa du nu mën a tudd lépp ndax waxtu wi dafa gàtt waaye danañ ko commencé rek di wane 1960 fa xeetu doxalin yu mel nii commencé di am ñu séq ko aku nit yoo xam ne ñoo ñoom ñoo bokk pas-pas boobu muy ñi nga xam ne ñoo nu colonisé woon mën nañ cee tudd ay tër yu xaw a takku ngeen baal ma daf ma xaw a sori yoo xam ne moo yóbbee tey sunu société ñuy dund lii ñuy dund li ñu xamoon ci famille mooy nee ko lislaam tëralee waaye dañu dox ab diir gis ay loi yoo xam ne ba ca jiitu mooy loi wu 1966 ñu ne loi boobu ki nga xam ne moo ko settantal ñu ngi koy tuddee Adam Weishaupt ci complot boo xam ne mën nañ koo tuddee complot contre l'église wala contre complot contre la famille loi 1966 boobu ci la njëkk a wane ne li ñuy tuddee famille ñu ne kii dafay nekk jëkkër kii nekk soxna fitna la pour doomu aadama kon dafa jot sëkk ñu commencé def li ñuy tuddee mariage civil te mooy dund ca nañ ko bëggee ndey du maye baay du maye loi boobu sunu sunu sunu société sénégalaise bi dañ ko adopté à cent pour cent bi maanaa dañ ko jël ca intégralité ba noona mu mënoo ca France noona la mënoo tey ci Sénégal waaw ngeen baal ma liñ doon seet ñu ngi koy door a gis ci 1966 la loi boobu tëdd 1967 ñu indiwaat beneen loi bu ñuy tuddee loi de la contraception ab juif bu ñuy tuddee Lucien Névrite moo ko njëkk a proposé avocat la woon législateur la woon franc-maçon la woon de haut degré wane ne jot na pour nit ñi bëgg a dund sans famille ñu jàppandalal leen lu ñuy tuddee contraception pour ñu mën a dund seen dund nañ nañ ko bëggee luñ jaar sax ci famille loolu mu ngi nekk 1967 1982 ba tey ci mutation sociale bi ñuy dund la ñu gis beneen loi boo xam ne ab juif maçonnique bu ñu doon tuddee Woody moo ko tëral muy lan jëm ci lan l'interruption volontaire mooy waxuma la sax mën ngaa jëfandikoo contraception waaye boo ci jëlee ëmb ci lu la neexul mën nga ko tuur sans problème biñ demee ba 1999 am benn pacte buñ tëral gouvernement socialiste français yi ñoo ko tëral muy lan góor ak góor far mën nañu war nañ mën a sëy pacte boobu ñu ko tuddee la loi di Pax Pax 2013 ñu indi far mariage homosexuel lee dañ noon mënu na far léegi ñu ne mariage Taubira ba tey bokk ci parti socialiste yi ci France ñoo ko tëral yii yëpp nag bu ngeen ko xoolee sunu luwaa réew daf ko nangu à cent pour cent yaakaar naa am na benn émission bu ñu def ci keppaar yàggul ñu doon ci wane ne sunu luwaa réew aayawul ay góor daje di sëy fas yéene dundu famille aayewu ko feeg ñu ngi koy def ci seeni kër di ko defee ci seeni barab defuñ ko publiquement ba tey itam ci transformation sociale yooyu mën nañ ci gis tey li ñuy tuddee genre nga xam ne dañ dañ ko bind ci sunu luwaa réew wutal ko ministre genre mooy nga juddu di góor mbaa nga juddu di jigéen dem ba am fukki at ak juróom xool sa bopp ne man de dama juddu di góor mais neexatuma damay soppiku léegi jigéen ci gàttal kon mutation yi bëri na transformation bi bëri na ci gàttal ñu laaj nag léegi waaw wëlbatiku gii famille di wëlbatiku société di ko wëlbatiku ci durée bii da ko commencé ca mag ñële ñoom Thierno Souleymane Baal ba agsi tey seeni njaboot agsi ci niveau ne góor ak góor war nañ mën a sëy jigéen ak jigéen war nañ mën a sëy xale yi sax war nañ dem war nañ mën a dem ba ñu nekk ci moomeelu état république moo leen di moom war a mën a tëral ay loi yoo xam ne góor ak góor bu ñu dee sëy suñ demee ba bëgg doom war nañ mën a adopté doom joo xam ne ëllëg seen doom lay doon jigéen ak jigéen it kazalika loolu yëpp ay loi di ko tëral ñuy laaj kon tey ban modèle de société la Sénégal soxla pour mucc ci fi nu toll bu fekkente ne ci liñ ma mayoon la dafa mel ni sama waxtu jeex na ngeen baal maax waaye comme maag sëñ Maxtaar ñoo ko bokk damay cof rek modèle bi ñu soxla suñ paree bàyyee ko ko moom xam naa ne li ñu rëcc yëpp dana ko mën a mottali bu soobee yàlla subhanahu wa taala mbokk yi tey modèle bi ñu soxla mooy modèle bi sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam andi woon ci gàttal modèlu société boo xam ne que jiite réew ma ak enseignant ba ak professeur ba ak élève ba ak étudiant ba ak wayjur wa ca kër ga muy ñaari wayjur wu jigéen waag wu góor ga ak njaboot ga ca biir kër ga ñoom ñëpp ñooy bokk pas-pas modèle bu mel noonu lañ soxla waaye soxlawuñ modèle bii nga xam ne que la jiite ca bopp réew ma doonte nee na jullit la waaye am na liberté absolue bu koy may mook ay législateur am ñu mën a tëral xeeti luwaa yu mel ni yii nu doon wax léegi Sénégal feeg ñu ngi am modèle boobu biñ soxla amaguñ ko ma waxaat ne modèle biñ soxla modèle la boo xam ne ka jiite réew ma ca bopp réew ma ak enseignant ba ak professeur ba ak ñaari waajur yi wu góor wa ak wu jigéen wa ak doom ya ak sëriñ ba ak taalube ba dañuy bokk luñ gëm bokk nuñ gëmee kii du gëm kee ñëw ne ko sab taalube laa gëm naa la waaye dama koy daj modèle bi ñu soxla mooy modèle bu mel ni bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam tabaxoon nga xam ne la yonentu gëm moom la Abu Bakar gëm radiyallahu taala anhu la yonentu gëm moom la Umar ibnul Xattaab gëm radiyallahu taala anhu la yonentu gëm moom la Ousmane Aliyu sahaaba yi yëpp gëm moom la borom kër ya gëm moom la njaboot ya gëm modèle bi ñu soxla mooy modèle boo xam ne bu yonentu bi tëralee sallallahu alayhi wa sallam yàlla tëral institution ya duñ am mukk sañ-sañu may ka jiite jullit ña mu dajj la yàlla tëral comme yonentam sallallahu alayhi wa sallam ñun modèle bu mel noonu lañ soxla waaye feeg ñu ngi am modèle boo xam ne bu yàlla tëralee yonentu tëral kilifa diina tëral taalu bi ñëw ne ko dajj naa ko dajjee naa ko loi bi ma gëm dajjee naa ko ci assemblée modèle boobu feeg mu ngi fii duñ am biñ soxla léegi nag boobu mooy biñ soxla ci gàttal modèle boo xam ne kilifa ga ca kaw ba ci suuf ñoo bokk luñ gëm ñoo bokk nuñ ko gëmee ñooy bokk respect ak fidélité bu ñuy jox seen pas-pas ak seen ngëm ndombo tànkuk àdduna du la may mukk nga am sañ-sañu dajji lenn lu yàlla tëral mbaab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour nag modèle boobu taxaw lu mu laaj voilà loolay loolay laaj bi ñu ñu terminé ko suñu conférence ndax dañuy wax rek ne modèle bii lañ soxla bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon dund moo ki saxaabaam mag ñu baax ñi yëpp gëm ko doon ko dund boobu lañ soxla mais boobu buñ ko soxlaa fu ñuy jaar pour am ko laaj boobu lañ bëgg a tontu terminer ko suñu waxtaan ngeen baal ma ci minute ji ma jël te moo ma ko ñu ne loolu pour ñu gëm ko faaw ñu ñu tabaxaat suñuy pas-pas tabax aqida pas-pas bu wér ci sunu bopp ñun way jur yi tabax ko ci sunuy njaboot ba gëmloo leen ne ñun ñii kat ay jaam lañu mënuñoo nekk mukk ay ay ay yàlla ay jaam dong lañu ci juddu ay jaam lañu ci dund ay jaam lañu it ba ñuy dee ker bu borom bi décidé ne tey la juddu keroog la tey la dee keroog la kon kooka la ñuy jàmm loolu dañ ko war a tabax ci pas-pasu xale yi gëm loolu lañu itam ne duul ne dañ koy jaamu ci nuñ gisee ñun mbaa nuñ bëggee ñun déedéet dañ ko war a jaamu canam tërale noonee mu tërale it ñu fexe ba xamal njaboot gi ne leen du ne ñun ñoo koy xalaatal suñ bopp mbaa benn mbindeef du ñu ko xalaatal ñu fexe ba njaboot gi gëm ne noonee suñ borom dafa tànn kenn ci biir mbindee fi yebal ko ci ñun ñu koy tuddee muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kookee mooy sunu kilifa ñun ñëpp ci mbindee fi fexe it ba tabax ci xolu njaboot gi ne kooku nag di sunu modèle muy muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amul fooy toll ci diina ci maqaama ci topp yàlla ci mbaax ba loola may la nga mën a waroog moom ñu joxoñ leen nag ñaar ci foofu ñu toll muy lan ci àdduna am na ñu dem ba am maqaama ak ndombo tànk koo xam ne yaakaar nañ ne may na leen ñu mën a waroog yàlla ak yonentam ñu xamal leen ne loolu pas-pas bu yàqu la ñaareel bi ci diina am na ñu dem ba yaakaar ne nit war na mën a àgg ci diina foo xam ne war na mën a waroo teg si loolu it dañ war a tabax ci njaboot gi weddiloo leen ko bañ xam ne amul fooy toll ci àdduna mbaa ci diina fu lay may nga mën a woroog yàlla ak ab yonentam sallallahu alayhi wasallam loolu buñ ko réussir ci sunu njaboot incha allah commencé nañ di am njaboot goo xam ne daañ ñu mën a tabaxalaat société modèle biñ soxla ñetteel bi nag ñu gëm loolu leen ne système boobu ñu suñu modèle andil muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dafa global éternel ci yàlla dong lay mën a bawoo jaar ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam mooy rabbaniya waaye itam gàttut dafa global làmboo démb tey ëllëg pas-pas xelaatiin famille société état politique économique lépp a ngi ci biir pas-pas boobu bu ko defee suñ njaboot gi dootuñ gëlëm di jëggaani fenn lenn loolu yaakaar naa bu ñu ko réussir ci sunu njaboot incha allah daa ñu mucc ci ñaari xeeti kilifa yi ñu tudd léegi nga xam ne ñoo gàllankoor diina gi ma njëkkoon a tudd mooy gi yaakaar ne ndombo tànku àdduna may na ko mu war a mën a teg tànkam ci kaw li yàlla waxoon na ko bi yonentam sallallahu alayhi wasallam kilifa googu arrangé wu ñu baaxut pour ñun gi ci des mooy kilifa goo xam ne moom it dafa askanoo ci diina te matewu ko ndax gee nee na ko yemal fii ci sa jàkka sa tool bi sa der bi moom it mu jàpp ne foofa dañ ko yem loo kon fa la war a yem lu yàqu ci diina dañ ko koy laajal rek faaw ñu tabax pas-pas bu wér ci xelu njaboot gi pas-pas bu mel noonu pour ñu mën a militer ñu yëg ne itam militantisme boobu ñuy war a def nag war nañ ko mën a def pacifiquement intellectuellement te duñ ko def ci benn xeetu violence mën nañ koo def it ba modèle bi ñu soxla ñëw jaaree ko ci jëfandikoo sañ-sañ ak àq ak yelleef yi leen yoon yépp may ci àdduna bi mboole seen yoon yi ci àdduna bi may nañu nit ñi ñu dund nañ gëmee wooteel lañ gëm créer seeni parti ci lañ gëm créer seen vie politique ci lañ gëm créer seen vie juridique ci lañ gëm ma tëjee ko ne ci ne faw ñu dindi benn complexe bi am nga xam ne dañ koo complexé jullit ñi ba ne leen jàng ngeen de am ngeen modèle bu baax modèle de société bu baax bu normal waaye nag modèle boobu valable la tut ba ñu mujj sax ñu mujj am ñu itam complexe ci ne modèle bi baaxatul valable atul kon jaratul ñu di ci woote may sañ-sañ keneen ka jàng beneen modèle ñu ne ko yow bi nga jàng valable na kooku it am complexe d'infériorité bi super kii am muy complexe d'infériorité kële far am complexe de supériorité bu ko yóbbee mu rëy rëylu ba ne ku jàngut li ma jàng waru fee former parti waru fee woote lenn lu bokkut ak li ma jàng complexe boobu faaw ñu dindi ko ci xelu xale yi bañ yëg ne diina ji ngeen jàng système global la dafa matale am ngeen sañ-sañu dund ko am ngeen sañ-sañu woote ci am ngeen sañ-sañu créer seeni parti yu basé wu ci société bi parce que parti bi bu amul culture bi du am lu koy liggéeyal pour delloosi ko pour yóbbuwaat ko ca gouvernance pour yóbbuwaat ko ca ministère ba pour yóbbuwaat ko ca palais présidentiel faawu parti koy liggéeyal kon na ngeen gëm ne pour modèle bi dellusi yoon boobu képp la du violence du leneen ñu ngi jéggalu ñëpp di baalu àq ñëpp hasa wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi